fukk ak juróom benni fan ci weeru août ca atum 1964 ca la ganee àddina fële ca Linguère ca xolu Jolof Aly Ngouille Ndiaye lay wuyoo la ko dalee ministère de l'énergie jàpp ministère de l'intérieur rawatina ministère de l'industrie et de mines yooyule le màkkaan yépp moom jiite na ko tey ji nag mu nekk jaraafu Linguère mu doon koo xam ne nag béy na waaram bu baax a baax ci ñaareelu alternance politique bi am fii ci Sénégal waaye jéego yu am solo yu mu def ci kepparu politique bi dafay wone rek njàmbaaram ci wàllu njàng mi école Birima Seck foofee ca Linguère fa la defee étude primaire am ginnaaw ba mu amee lijaasa bi di CFE jolof jolof bi nag dal di jóge jolof wutali Louga mu jóge fa dem Diourbel ngir àggali fa ay étude secondaire am ginnaaw ba mu amee lii di BFM Ali dal di wutali Ndakaaru doon jàngee nag ca li Limamou Laye bu Guédiawaye foofee sax nag la amee lii di baccalauréat am série S ca atum ñu toftal ci ay weer mu jóge Ndakaaru wutali ceeskaay ca daara gi ñu duppee école polytechnique de Thiès foofee nag la doone ingénieur en génie civil nekk sax major promotion ba mu bokkoon muy 1983 jàpp 1988 ginnaaw ba mu jógee ci l'école sénégalaise yi mu daal di tàbbi nag ci bërëbu liggéeykaay yi foofee ca banque de l'habitat du Sénégal ay atam toll woon rek ci ñaar fukk ak ñeent mu nekk technicien ci boobu lépp bërëbu liggéeykaay Aly Ngouille Ndiaye nag doon koo xamante ne ki sàkku xam-xam da ko yitteeloon lool ba tax na mu daal di jóge BHS e ECS ga mu doon liggéeyee wutali bitim réew maanaam États-Unis dem jàngi nag ca institut de technologie de liloi ba nekk ca Chicago foofee nag mu jëlee fa double diplôme en finance et recherche opérationnelle mu dellu siwaat fii nag ci réew mi delluwaat ci BHS ga mu ne woon ginnaaw lu toll ci ñaar fukki at yoo xamante ne moom liggéey na ko ci BHS mu daal di quitté nag liggéey boobu ngir sóobu ci wàllu politique la ko waral du woon lenn lu dul ba bokk fexe fexe li nga xam ne moom la way juróomu góor bàyyi woon ci wàllu politique moom mu fas yéene ko wéyal way juróom wi di Ibrahima Ndiaté Ndiaye nekkoon maire Linguère loolee nag ñu ngi tolloon ca atum 2007 at boobu nag ci la daal di sos ab mouvement mu duppee ko mouvement pour la renaissance du Jolof MRD ñaari fan ci weeru mars ca atum 2013 mouvement bi di MRD nag dal di ñëw soobu ci alliance pour la république bu président Macky Sall boobu ba léegi nag ñuy ànd te ba tey tàqalikooguñu donte sax moom Aly Ngouille Ndiaye jóge na ci gouvernement bi depuis 2019 jamono joojee nga xam ne mu ngi nekkoon jëwriñ ngi ñu dénk wàllu biir réew mi ba léegi nag mu ngi wëy di am gëdd bu baax a baax ca parti bi di APR lay firndeel gëdd googee mooy tabb gi ñu ko tabaat ngir mu jiite Linguère muy gox que mu fekkee baax